Courtois ak successeur am boo xam ne fi mu toon nii xëccoo nañ lu bari guddi yu ñu toll maa ngi koy jàngal nu ñuy góoloo ma ziar leen bu baax a baax ànd beeg ñun am na solo El Hadj ci kàddu gi ma gërëm leen sant leen sàkku ci abonnement yi képp kuy merengue maa ngi lay béggee catalan yi fàttewu ma leen City ñi ngi kaas ak Manchester United Bayern ni ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di leen fël-fëlaale ci information yu wérti wóor ma nga noonee image yu leer naa ñi di xëy xëy entraînement bi nag bala noo ñëw ci bu Barcelone ci kanam Real Madrid tàggatu nan ko Vinicius Junior a kii gaayam ngeen gis leen noonu waaye li ne ngeen gis ko nag moo Thibaut Courtois ci fond image yi ak image ci kaw en même temps ñu dajale ay bal yu bari nag waaye na ma gisee nga gis kii nga xam ne daanaka mooy euh, Courtois di bàyyi xel lii di deuxième gardien Real Madrid bi nga xam ni ñoom ñaar ñi ngay waxtaan di euh, gundaandaat foofe euh, ci li nga xam ni moo nekk Valdebebas Mendy mi nga xam ne fi mu toll nii daanaka wërsëgu tan la yor ndax ku ñu doon xool sax bëgg laa sippi sànni saraxe la ci boobee équipe léegi nag fi mu toll nii ngay saraxewaate ndax ñëpp nag jàpp nañ ni bu dee défensivement rek taxaw ci camp yi kenn du dem kenn du dikk moom mii di Mendy moo ci man beneen bi ci des mooy naa gardien yi dinañ ci dikk ci lu yaato yaatu ndax ñoom daanaka bari na ponk yoo xam ni ñu ngi koy fësal ci li nga xam ni mooy football meilleur ca équipe bii di Real Madrid mu am solo bu baax a baax ñoom sebe sa ngoog tuuni kurus ci bu tooy ci waa ni ngeen gis ko ci ginnaaw mu mit muy am doxalin boo xam ni bu am am solo la doxalin boo xam ni bu ñëpp maase nag ci équipe bi ni jàmbaar la ngeen gis ko noonu daanaka euh, colonie brésilien yi ñëw nañ Carvajal seen paa bi moom it di latéral droite ngeen gis ko ci taxawaay bi nga xam ne am na solo gars yi bu leen fàtte tamit pour vos publicités 77 541 22 55 Fede Valverde ma nga noonee moom it bokk ci li nga xam ne gone yi tàggatu nañ gone yi nag li ñuy waajal mooy match yi nga xam ne yu ama am solo la Real Madrid fi mu duut baaraamam foofu baax na fi mu teg tànkam euh, foofooy nagam foofoo baax foofu tamit la merengue yu bari di xaar équipe bi Carlo Ancelotti ngoogu ci ginnaaw moom it euh, di màgget goo xam ne wax dëgg yàlla gaañi rëccu wun lu nu bu lu mu doon tege tàngam ca club bii di Real Madrid nga xam ne jaar na fa jaaraat fa kon gaa ñi xam nañ ko bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni am na ko ci wàllu football ak entraîneur équipe bile di équipe bu Real Madrid Real Madrid géen pour ma sàkku ci yéen me vidéo bi maximum de partage loolee dana euh, baax ci li nga xam ni mooy bile seen te loolee du ngeen ko bañ mu doonoon Aladji Malick ci kàddu gi seetaankat yi yéen ma sant leen gërëm leen jërë ngeen jëf.